nga wax oui mais mais il est dans l'administration la décision elle vient de qui ah justement xoolal donc vu le décret 92 918 du 17 juin 1992 relatif aux modalités de désignation des membres élus de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire ah mais justement. mais on l'a publié. mais ne magistrat diw. jëlee nañ ko ci place sangam ak aj nañ ko 10 ans. boobu c'est la loi qui l'a autorisé. mais mais ah, mais donc mi ngi pourtant mi ngi nii ñu koy publié. Papis. 20 secondes. Uh-huh. vas-y. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi génn débat parce que parce que euh, en fait fi ñu tolloon boog wala kon ma réer. parce que fi ñu tolloon. Uh-huh. Euh, mooy l'histoire de l'IGE. non c'est que Malal daf ko interpellé fu mu amee solo. pour pour ñuy siiwal comme il dit. d'accord ndax dinañ ko def wala du ko def on est en train de représenter encore une fois IGE. IGE mm. est-ce que am na lu si bees lu ñuy xamante Sénégalais. pour man on perd du temps. on est en train de perdre du temps. Mm. en présentant l'IGE parce que ñëpp xam nañu IGE. benn mooy grand j'ai j'ai envie de demander aux gens qui parlent au président parfois est-ce que. mu ngi yëgle est-ce que dinañu restituer l'esprit la perception des Sénégalais par rapport à accord de contrôle IGE. pour parler wolof mu leer nañ der mhm. Sénégalais dañoo bëgg lu ñu bëgg. waxuma les politiques les journalistes les waxuma Sénégalais dans l'écrasante majorité dañoo ne ku sàcc xaalis waxuma magistrat bu def ay faute ku sàcc xaalis détourné xaalis nañ la jàpp ku sàcc xaalisu réew mi nañ la jàpp. waaw wax loolu ko c'est que il faut pas. théoriser, aller. C'est aussi simple que ça. Tu sous, on te met dedans. Maintenant, je continue, je continue. Ce qui se passe, moi, pourquoi les questions reviennent à chaque fois épinglé, c'est relatif, ouais. mais des gens qui ont été en fait ñu def ay luubal quoi. et dara lu si génn. perception boobu la Sénégal yi nag di construire. di ko construire di ko construire mer ba gëmatuñu sax organe. donc quand tu te mets à à, à, représenter l'IGE, la qualité des gens qui y travaillent, kooku musul nekk l'objet d'aucune contestation. Il y a que des génies à la limite qui sont là-bas, machallah. Mm. Le problème c'est pas à ce niveau, le problème c'est l'application des recommandations et tout ce qui s'ensuit à la suite des fautes qui ont été commises et reconnues. Mm. Sénégal yi dañoo bëgg encore une fois der ku sàcc xaalis réew mi keesu état yi ñu jàpp la. Mm. waaw parce ah, que c'est ça le problème. y oui ñu déglu suñuy doom yi dañuy jël gaal yi. di traverser Atlantique wala Méditerranée mm. di dee si biir si géej gi lu leen di rey mooy le projet social boo xamante ne agul moo leen di rey mm. surtout d'abord ñoom bokkuñu si projet nous ne sommes même pas des produits d'un mm. projet c'est une catastrophe beneen wax boo xamante ne faw ñu wax fi un jour nga génn si loolu ñu jël xaalis chaque année député yi voté si loo xamante ne moo war doxal dëkk bi chaque année xaalis boobu maa ngi ne fu muy jógee le minimum mooy que bu amee kuréel boo xamante ne liggéey ni saytu avec tout ce que nous avons Cour des comptes OFNAC IG yooyu yëpp et d'année en année ñuy waxaat les mêmes choses mais nan dem Singapour pourquoi mu bouger pourquoi mu changer Singapour nga xam ne ñoom ñoo tolloon mais quand le président a le ministre des finances là liquidé ko fan la dafa jeex nan dem Malaisie depuis vingt cinq ans c'est-à-dire loolu laay wax te cest bu fekkante ni ñu ngi toog nous sommes pas cohérents suñu démarche n'était pas cohérent am nañu lépp mais on n'en fait rien. Et chaque année, on vote des budgets. Il est impensable que nous am loo xamante ne muy doon ay directeurs wala nekk ay ministres mais wax ñu avec tout ce qu'on leur donne tous les privilèges loolu doy la ngay téye xaalis bi loolu parti loolu lay wax et on n'aide pas les Sénégalais bu fekkente ne là le président on est en train de parler d'IGE je pense que loolu yëpp c'est une perte de temps le président dafa ne introspection mais ça veut dire que ñun quoi nga xamante ne on ne fait pas partie au contraire on paie on fait dañuy fay ay ay taxes fay ay impôt revenu fay loolu on doit faire une introspection ñun pour sur des gens yoo xamante ne ñoom ñooy contrôler c'est-à-dire notre vie de tous les jours moi je peux comprendre que sur des choses de top secret naa comprendre que de mm-hmm. lu top secret défense mun naa comprendre que loolu quand même foog ñu xoolaat ko c'est pas toutes sur la place publique mais sur des considérations yu demee nii pécuniaires yoo xamante ne il y va de notre survie la survie de nos enfants mais on à la limite on se moque de nous alors fi wax wax am solo ci réforme de l' administration pour yow <laughs> jamono bi ñu toll lan la ñu war a def pour réforme am administration boo xam ni dina performante comme ni mu ko waxee bëri na ndeke processus ak procédure yoo xam ni normalement dysfonctionnement yi warul am mais mi ngi am qu'est-ce qu'il faut ak naka d'abord mooy li li Charles wax sànq. de mm-hmm. professeur Moustapha Kassé bind ko ci livre am mooy le Sénégal est malade de ses élites il faut commencer par par les par l'administration. par les hommes politiques. Euh, man man der rapport rapport IG bi et je reviens dessus daf ma daf ma traumatisé. Mm. parce que ñun boo gisee ñëw administration Sénégal Khalifa Sall dafa am lu ñu waxoon. parce ñu fekk bitim réew ñuy jàng ñu ne ko nan la mën jàppalee mu ne ñu su ngeen ma bëggee jàppalee da ngeen ñu nangu ñibbi Sénégal parce que yéen ndaw yi il ngeen jàng am parcours. def administre parce que ñu ngi woon foofu suñu morom yëpp en commençant par votre directeur général que je suñu ay promotionnel lañu ñu accepté def defi ñëw Sénégal liggéey ak moom def ay chantier ay yu bëri moo tax ma ne rapport IGE bi dafa ma traumatisé parce que rapport IGE boo ko jëlee tey on a accusé Khalifa Sall d'escroquerie portant sur les deniers publics mm-hmm. maire boo xamante ne sur un milliard et quelque sur un fonds politique de 30 millions. 30 millions par mois. fonds euh, politique. oui waaw c'est pas c'est pas le problème c'est c'est 30 c'est 1 milliard et quelques. Mm-hmm. mais maire boobu la ñu àndal liggéey. mu wër l'ensemble des banques locales. Mm-hmm. ne leen nos espaces urbains ont besoin d'être structurés soxla ñoon Promoville. Mm-hmm. il faut accepter de prêter aux villes. mobiliser par plus de 10 milliards auprès de toutes les banques locales li leen fay tey déggoo ville de Dakar am na problème bor bu mu amee ce maire là. moo ànd ak Anne Hidalgo ànd ak Delannoy ànd ak tous les maires dem si institution internationale ne ne il faut ouvrir des guichets libal collectivités yi moo tax tey Union européenne mën libal directement ville de Dakar 1 milliard 500 pour notre plan climat énergie ce maire là bi mu yoree CGUA di diriger l' ensemble moom moo dem cette institution financière bancaire ne leen il faut faire confiance aux villes africaines ngeen di leen lebal moo tax BOAD lebal ville de Dakar 9 milliards pour la voirie à Dakar un maire bu réussir regrouper de 20 milliards au service de sa ville sur sa compétence personnelle ci engagement am ci crédibilité am crédibilité am maire boobu la réewam taxaw ne ko yow da ñuy escroquer da ñuy dóor marteau un milliard six cent et ça c' dans le rapport ville de Dakar am na ay performances yu mag yu Khalifa Sall def Khalifa Sall moo ñëw interdit biétage dañ doon fay salaire en liquide en ville de Dakar Khalifa Sall moo ko interdire ne il faut arrêter ça aller ouvrir de formation d' accompagnement suivi ba AFD ñëw lewal ñu 6 millions d' euros pour l'éclairage public à autant de performance ak des jeunes comme ñu ñëw gëm ànd ak moom mu am mën nañu il faut éviter ñu mel ne comme ay Benoît Sambou cest dire ngeen dem bañ jox la ministère nga daanu nga mel ni Mbaye Ndiaye nga dem bañ jox la ministère de l'intérieur nga daanu parce que tu es un bon politique. Mm. mais jàngoo amoo parcours yaa ngi yaa ngi ñoo xam ne newuñu fi. Eh, eh, non c'est ça c'est ça le fond du problème je dis tey on a un maire qui quoi qu'on puisse dire a bien travaillé ñu ñëw accuser ko sur un montant à la limite. dérisoire par rapport à tout ce qu'il a eu à faire maintenant on peut avoir un débat sur les fonds politiques c'est pas le fond du problème mais que tey IGE ñoo génnee rapport avec une partie de félicitations ñu retenir un petit oui euh, mais un maire également mais un maire également parce que au-delà de la campagne que tu fais une comme tout à l'heure il l'a fait tu es en train de faire une campagne ce qui nous intéresse ici ce qui nous intéresse ici ce n'est pas de faire les éloges de qui que ce soit exemple bu ñu revenir effectivement. Et, et, et ne pas refaire le procès de Khalifa Sall. oui oui ne pas non oui mais on va perdre du temps. non xam nga tamit lan la ñuy bañ. sur ces recommandations. j'ai en face de moi un député. de l'Assemblée nationale am na ñoo xam ne aussi dafay wax ne mu taxaw wax mu wax. abo mu ne dafa am administration. bu ne dégg nga dafa ne forcément on va y arriver mais Macky Sall est là depuis huit ans.

li li muy wax ni dans la droite ligne président Macky Sall aussi bi muy laaj réew mi 2012 dafa ni woon day génne IGE présidence. Ah, si ma mémoire ne me trompe ah, pas. mais il ah. nañ ci de te ni ma la damay yori archive bu ma ko seetee léegi daj ci. si ma mémoire ne me trompe pas. mais dañu àndoon ak ñoom ci discours. on attend de lui depuis boobu. li mu waxoon bëri na de. Hmm? li mu waxoon bëri na gaa mais bon Papis me rappelle que li mu waxoon bëri parce qu'il a évoqué des questions yoo xam ne. mais 150 collectivités. Abba Abba pour conclure après Daouda Mine. nee na on a 550 collectivités qui ne sont pas viables mais ñoom bu ñu ne li fi fekkoon dañu fi fekkoon des communes fekk fi des communautés rurales yu am seen organisation am seen fiscalité am seen hmm. spécificité. Hmm. ñoo indi de la décentralisation hmm. communalisation universelle ça veut quoi ça veut dire quoi. tey aujourd'hui tu as la ville de Dakar qui a parce que. Euh, concentration économique bi am Dakar moo tax Dakar am budget bi mu am. à côté tu c'est ça sa vocation man du ma waa Dakar man doomu Ndar la et quand je vois état école yi ci biir région yi les régions n'ont trois fois rien hmm. aujourd'hui tu prends le TER tu prends BRT tu prends les autoponts tu mën nga dem sax ba chantier de l'ANOCI sur les cinq dernières années c'est presque milliards qui ont été investis à Dakar mais ça c'est le président Macky Sall savait d'arriver qu'est-ce qu'il a fait depuis loolu et je pense que fondamentalement le problème de ce pays là <laughs> c'est pas une question de réalisation mm-hmm. c'est un problème de réforme mm-hmm. est-ce qu'on a réformé le pays on ne l'a pas réformé. Ouais. Acte de la décentralisation, pas une réforme, c'est une moitié de réforme. Mm-hmm. Donc c'est une réformette. Oui, réforme. C'est la seule réforme qui compte. Donc il faut, non, il faut réformer comme, le pays. Comme en France, quoi, réformette. Oui, mais vous, vous n'êtes que ah, ping-pong. Non, non, non, ah, mais ça, demain, il va fâter, quoi. Non, non, non, c'est intéressant. Je serai le premier à te rappeler. À te il a évoqué des questions <laughs> Allez, Der, man réformette, on ne va pas oublier. Der, Der dama yaakaar ne mm-hmm. euh, corps bu mel ne IGE. Hmm. soxlawuñu am ay yenn. laa ko wax sax études yi ba yegg fenn fi ba pare di dépendre ci quelqu'un su fekkee ne ñoom amuñu les moyens d'être autonome de pouvoir faire leur travail et que seen résultat seen li ñuy def ba pare mu am beneen njariñ hmm. je pense que soxlawuñ nga nekk un corps prestigieux ba hmm. pare di dépendre ci quelqu'un bu lay wan yoon ne la li ngay def wala la ngay def c'est la première des choses tey que ce qu'on voit chaque année on wala cinq rapports waxuma la IG rek mais yàllaay ARMP da ngay gis Cour des comptes gis ngay gis OFNAC rapport yooyu yëpp fan lay jëm dafay nekk dans les tiroirs day mujjee dans les tiroirs tout simplement pourquoi est-ce tous ces rapports là parce que ci loxo président de euh, la République lañ koy teg pas les tiroirs kudd bi hmm? si kudd bi lay mujjee waaw il même eu à dire que am na yenn yu nga xamante ne moom moo ko moom moom moo ko mettre sous le coude donc c'est pourquoi je me dis que réforme bii ñuy wax noonu sànq dama ko wax peut-être euh, Papis ne m'a pas m'a pas compris hmm. li may wax moom mooy dañu am trois pouvoirs dans ce pays là pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire tey li tax ma ne par exemple ces rapports là il faut pas que ñuy jël di ko jox président parce que même boo ko joxee président public su bëggee enclenche une procédure judiciaire daf koy jox ministre de la justice ministre de la justice daal di koy wàcc au niveau du procureur pour que ñu mën enclenche une procédure ma joxe sànq l' exemple de de de la CENTIF CENTIF ay rapport am du ko jox président du ko jox ministre du ko jox dara directement procureur de la république la koy jox et la loi loi bi ci boppam moom moo ne procureur bu ñu la ko joxee da ngay ubbi information judiciaire foofu laay waxee il est temps man pour man suñu problème yëpp mooy lan que ni rapport yi nga xamante ne dañ koy def finalement exploitation bi mooy poser problème loolu mooy suñu problème fondamental li ñu fi wax yëpp li ñu fi yëpp wax yëpp loolu la que mu nekk ARMP que mu nekk OFNAC que mu nekk ñoom ñëpp il faut la même chose et tous les tous les tous les toutes les années buñ ko jëlee dañ koy def président république ci turaar lay mujjee. donc je me dis que réforme bi ñu war a njëkk a def mooy fexe teg système bu nga xamante ne rapport rapports là mën na am exploitation bi war parce que rapport yëpp comme nu mu ko waxee président Seydou wax na ko léegi IGE bi ñu ko fi teg c' était pour que mu aider le président public pour que mu am une bonne gouvernance une bonne gouvernance d' abord c' est sur le plan administratif mu am une cohérence benn bi tey jii rapport bi nga xamante ne gis nañ ko gis nañ ay incohérence yu nga xam ne mi ngi commencé déjà au niveau de la présidence parce que boo demee ba nga xamante ne euh, décret bi nga xamante ne moom mooy moom mooy def répartition des services ñuy dem sax ba jëlee organisation yu nga xamante ne organisation sous régionale la di ko affecté à un ministère ça di dire que a problème bu ñu jëlee ba même OMVS ñu koy affecté à un ministère ministère de l'eau wala ñu ne OMVG ñu koy affecté à un ministère de l'eau wala ñu ne ASECNA di ko alors que ñooñu c'est des structures étatiques c'est des structures yu nga xamante ne ñun rek moomuñu ko dañ ko bokk ak yeneen kii bu ñu demee ba def loolu ça veut dire que y a une carence au niveau de notre administration. ça dépend hein? du point de vue non c'est le rapport de l'IGE non mais du point de vue de la tutelle technique. Mm, mm. ñoom ñooy interface. ak OMVS et donc les crédits répartition des services de l'État la ñu wax on ne peut pas répartir un service bu nga ah xam ne bokkul ci état bi voilà c'est l'IGE qui l'a dit dans son rapport je me dis que loolu bu demee ba nga xam am na jusqu'à la présidence président moo def décret boobu euh, décret répartir OMVS yóbbu ko ministère de l'eau rapport IG bu mujj bi ah. boo ko liiree nga fekk ko ci. ñun ki garder suñu constitution. grand di organiser affaire <laughs> donc donc donc pour wax la quoi pour wax erreur yu nga xamante ne bu ñu demee ba à ce niveau d' erreur nga xamante ne ça pose un problème nga ñëw par exemple tey jii dans le dans le même rapport ya un certain nombre de choses yu nga xam ne wax nañ ko sax au niveau au niveau des prisons. Mm-hmm. je donne l' exemple des des des, des prisons tey y' a un décret qui organise les prisons sénégalaises ñu ñëw sur les 37 prisons qu'on a. quatre catégories de prison la ñu am on a des maisons d'arrêt et de correction on a des de une maison de correction à Sébikotane on a des maisons euh, d'arrêt ñaar lañ. des centres de détention. Rebeuss ak ak maison d'arrêt pour femmes de on a des camps pénaux. un camp pénal sa vocation c'est que mu am mu jot ñi nga xamante ne. ñoom ñooy condamné condamné à de longue peine. c'est ça. ñu jàpp un Guy Marius Sagna détenu provisoire ñu yóbbu ko camp tey jii ma lay wax ne Assane Diouf mi ngi camp pourquoi. alors que y a un bu nga xamante moom mooy organiser loolu yëpp voilà donc ce sont des erreurs yooyu yu nga xamante ne IGE wax na ko ci rapport non non je veux dire non dama dama dama ne dama ce sont des choses des choses yu nga xamante ne rapport de l'IGE bind na ko noir sur blanc et que ñu war leen a corriger par A ou par B comment faire pour les corriger moi je pense que foofu la ñu war a foofu la ñu war a wax de y a yu nga xamante ne IGE épinglé na ko sur le plan purement administratif war nañ ko gérer. mais am na yeneen yu nga xamante ne ay malversation financière yu nga xamante dafa war am une suite judiciaire foofu laay wax ni yooyu noonu au lieu que ñu koy jël président muy seppi peut-être kii adversaire politique la. ma enclenché une procédure kii du adversaire politique ma bàyyi peut-être ba moment bu nga xamante maa ngi war dem élection euh, le moment est opportun pour que ma faagaagal peut-être benn adversaire politique ma doog ko génne sous suñu demee ba nga xamante ne rapport yooyu génn nañ ko ci présidence mun ko def leen peut-être loolu dafa amati on pourra régler un certain nombre de problèmes foofu laay waxee donc je me dis que je me dis que franchement IGE on n'a pas besoin d'être prestigieux

bi Abdoulaye Wade ñëwee utiliser na ci tànk politique bi Macky ñëwee utiliser na ci tànk politique la demande sociale maintenant mooy ñu jël IGE def ko réforme parce que assises yi waxoon na ko commission nationale des réformes waxoon na ko donc l' moo ñu dese donc loolu lañ foofu lañ soxlaa législateurs yi ñu dimbali ñu si. il faut comprendre que dans l' de Senghor. bu muy créer ah. IGE dans son. Euh, Charles Balma Papis li ngay wax c' très grave wax ak li président di euh, Seydou di tontu sax pour moi je trouve que